bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaatil wahmi wa akrimna bi nuuril fahmi <clears throat> waftax alayna bi maxrifatil ilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xadaina rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa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 ñoo ngi beral nuyoo jàngkati alxuraan yi waaye di nuyu itam jàngalekati alxuraan yi ñooy nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi ñaan borom bi subxanahu wa mu def jàmm ci réew mi ñaan ko it mu def ko ci réew yi ñu wër di leen ndokkeelaat bu baax ci weer wi nga xam ne ci lañ nekk di weeru kori nga xam ne waxoon naa ba ñu door a wori juróom-benni fan yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax na ne. ku woor weeru koor ba noppi toftal ci juróom benni fan mel nga ne ku woor at mi yëpp bu dee at mu jot nga def ko mel nga ne ku woor sa dund yëpp yal nañu ko borom bi subxanahu wa taala boole defal yal nañu nangul ñoo ngi siyaare bu baax mu mel ne maa ngi doon waxtaane lu jëm ci aj màkka ndax ci waajtaayam lañ nekk bari na lool ci ñi nga xam ne ñi ngi jëm ci waajtaay ñi ngi xool fa ñuy bindu ji. moo xam dañuy dem ci public ba wala ñu jëm ci privé am ñoo xam ne ña ngay xëy jëm ca fa ñuy ñàkkoo ji ak def seen ay visite ñenn ñi nekk ci waajtaayu wuti kayit ndax yooyu mooy jiitu ci waajtaayu aj ku nam ma aji daa bokk ci li muy waajal ci jamono ji koy jàngal mooy waajtaay wi nga xam ne moo jiitu mooy dem ca avance ba gannaaw ba nga amee information yi laaj lan laa war a def lan laa war a wut ña la cay jàppale jàppale la ci nga nekk ca buñ ca noppee nag jublu ci li nga xamante ne nii mooy farata ji waaye loolooy tax nit ki man koo def loolu nag ci lañ nekkoon di waxtaan ba ak fi ci ngëneeli aj màkka yi ak philosophie bi nga xam ne moo ci nekk ma waxoon la ne aj màkk jaamu yàlla la boo xam ne jaamu yàlla ak alal la ba noppi ànd ko yaram nga xam ne nit ki danay def ak jaamu goo xam ne da ciy jaamu boroomam waaye aw yaramam képp a koy def am jaamu goo xam ne da koy def waaye alalam ci la koy def waaye gu boole ñaari nag moom aj màkka da caa bokk daa bokku ca yooya nekk ponk ci ponk lislaam yi waaye am wàccuwaay lool bu rëy xam nga ne boo delloo ci taarix dellu démb da ngay gis ne yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam moom la yàlla woote loo woon woote ba wa addin fi nnaasi bilxajji yatuuka rijaala wa ala kulli daamirin yatiina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafia lahum waaye bi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëwee suñ borom subhaanahu wa taala farataalaat ko ci diine jim ko jox te joxoon ko ñu jiitu woon muy diine lislaam moom mi nga xam ne moo ñëw mottali si ko teg tegin wu njëkk bi yemu ca waaye mu aj jàngale niñ koy defee ba noppi ne dee leen ko defee nii ma koy defee yemu ca mu ne dee leen ko defee nii ma koy defee loola daal di mujj nag doon ak aj màkka ba suñ joon yàlla tey li ci nekk ci tiyaa ba bari lool waaye li ci nekk ci ay njariñ bari lool waxoon naa la démb ne boroom xam-xam yi ci ngëneeli aj màkka dañuy wax ne mooy jihaatu koo xam ne daa lot koo xam ne daa lot ci jihaatu yor ay jaasi jihaatug dem ca xare ba aj màkka jihaat la ci moom maanaam jihaat day e, ponk bu rëy boo xamante ne li ci ne ci tiyaaba nekk ci ci yiw ñu digge ko ci bari waana ay jaamu yàlla waaye nag diggewuñ ca lu tol noonu ki nga xam ne nag dafa e, lottu ca loola aj màkk da cay amee tiyaaba ju raw tiyaaba ji nit ki di amee ci jihaat moo tax mu indi loolu la démb xadis bi nga xam ni Seydina Xasan mi nga xam ne Seydina Aliyun mooy way juram radiyallahu anhuma mu ne jenn waay daa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko inni jabbaanun wa inni daif fa qaala bi alayhi salaatu wasalaam ne alxaj waa ko ne man day dama mel ne dama néew doole lool ba noppi taxut ma mën a dem ca xare ba ma bëggoon nga tegtal ma xare boo xam ne wala jihaad joo xam ne amuti dëkk jihaad joo xam ne amut ay jamante jaasi wala yu demee noonu yonent bi ne ko jihaad jooju de mooy aj am na beneen xadis boo xam ne eh, abi hurayra ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jihaadu mag ñi ak ñi néew doole ak jigéen ñi mooy aj màkka li tax ñuy wax loolu mooy wane ne aj màkka dafa am wàccuwaay bu rëy tiyaaba ju rëy ci nekk ci nga ngëneeli aj màkka ba tey abi hurayra radiallahu anhu nee na jenn waaye daal laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jëfi jan jëf moo ci gën waaw jëf jan jëf moo ci gën ci jëf yi ayu afdal jan jëf moo gën ci jëf yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko gëm yàlla ak yonent bi imaanu billahi wa rasulihi moom nga wax ndax moo lay ci moo boole ci diini ji nee na waa ji ne ko ak lan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko xajjun mabruur aj gu baax aj gu baax waaw aj gu baax muy xajjun mabruur aj gu jaar yoon aj gu yiw aj gu sell dañuy wax ne huwa alxajju alladi laa yuqaalituhu ismun mooy aj goo xamante ne bàkkaar raxu ko aj goo xam ne bàkkaar raxu ko boo demee ci borom xam-xam bu ñu wax alxasan day wax ne alxajjul mabruur an yarjia zahidan fi dunya ragiban fi l axira parce que lu jafe la nee na aj gu aj gu baax gi muy wax mooy koo xam ne daa dellu si ca aj ga doon ku dëddu àdduna waaye doon ku xemmeem alaxira waaw doon dëddu àdduna waaye doon ko xemmeem alaxira dëddu àdduna euh, xemmeem alaxira mooy euh, di def te yàlla tax di waajal aw yiw ngir di ko dawal ci sa bàmmeel waaye àddunay kefe-kefe bañ laa yitteel waaw àddunay kefe-kefe bañ laa yitteel am na koo xam ne mën naa wax lu du dëgg ndax am àdduna mën naa jëw ndax am àdduna mën naa yàq ab der ndax am àdduna mën naa sàggane ay waxtoom ndax am àdduna bépp njuuj njaaj buy tax mu am àdduna rek mën na koo def ngir am ko léeg-léeg alal ak koy jaral léeg-léeg kër ko koy jaral léeg-léeg ndomba tànk ko koy jaral yii nag bagaas yi àdduna la bagaas yi àdduna la léegi nag dëddu àdduna nag jublu àllaaxira mooy lépp loo xam ne daa nar a yàq ëllëg yow mal xiyaam jot ci àdduna da la jaral nga rey ci sa bopp waaw doomu aadama bi xellu euh, te jëfandikoom xelam mooy ki nga xam ne du jiital bëgg-bëggi àddunaam ba mu koy yàqal wàccuwaayam ëllëg yomal xiyaam moo tax alxajj gi nga xam ne mooy ajjul mabruur dañuy wax ne day tax ñu jéggal nit ki ay bakkaaram yu mag ya ak yu ndaw ya ci la gën a siiw waaw boroom xam-xam yi la gën a siiw ca seeni wax min aqwalil fuqaha dañ ne yu kaffiru dunuba kabiraha wa saqiraha bakkaar yu ndaw ya ak yu mag ya ñun ne bam def rek eh, tooñaange yi nga xam ne daa dox diggante jaam bi daa dox ci suñu diggante daa dox ci jaam bi diggante jaam bi ak moroomam illa al madalima allati baynahu wa bayna al ibadi waaw lu tooñaange yi nga xam ne daa dox diggante jaam bi ak moroomum jaamam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci beneen xadis boo xam ne imam Buxaari ak muslim yëpp indi nañ ko ci seeni téere abi Hurayra dégge ko ci ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam mu ne man xajja walam yarfus walam yafsuq rajaa ka yawmi waladathu ummuhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne aj na aj gu baax buy ñibbisi day mel ne bis bim juddoo ci ay woy juróom xam nga xale bi juddu tey moom defagut benn bàkkaar xale bi jëwagut fenagut lekkagut lum moomut doxagut ci rambaaj maanaam defagu fi dara dafa set wecc wecc wecc wecc wecc wecc wecc ki nga xam ne dafa aj aj gu jaar yoon it daa mel ne dafa set wecc wecc wecc wecc wala wicc wicc ba mel ne ki nga xamante ne dafay door a juddu ci woy juróom kon aj mak lu am solo la ndax gannaaw day tax ñu baal la la jiitu woon ci say bàkkaar lépp ku aj aj gu jaar yoon kooku set na wecc ci ay bakaar wecc waaw moo tax walam yarfus boroom xam-xam dañuy wax ne ar mooy ñaawteef yoo xam ne nit ki da koy def moo xam ay wax la wala ay jëf la waaw maanaam xaste hmm, ca aj ga wala jëw fa wala rambaaje fa wala dugg fa ci lu sa yoon nekkut moo xam ay wax la wala ay jëf ju ñaaw loolu ku aj ba noppi moytu ko loolu nag lu jafe-jafe la yàlla xam na ne lu jafe senegal la at mu jot buñ tollee ci aj su ma koy fàttali am ci loo xam ne boo ko fekkiwul woon dund ko boo ko waxee bu ko nit waxee da ngay dar sa gimiñ ndax am na ku dégg ku demagut màkk boo ko ne gis naa màkk ñaar ñuy xuloo danaan la yë dem ba màkk di xuloo am na koo xam ne boo ko nee gis naa màkk ñaar ñuy bëgg a xeex di xataraayu danga naan ko xanaa danaan la xanaan déedéet kay boo ko nee gis naa fa ñuy saagante danaan la déedéet kay doo xam ba xam waajtaay wu def la wala seytaane ki pexeem rek ak ni muy toppe doomu aadama la waaw kuy aji danga koy waajal danga koy waajal danga koy waajal yàlla xam na ne yi yàq aj gi bari na lool lool lool loo xamante ne nii mboolem ñi nga xam ne ay formateur lañ wala ñu nekk ay encadreur te am kàddu ca ñu ñuy yilif nañu gën a renforcer waat bu baax a baax waxtaan wi nga xam ne mooy dox suñ diggante ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal waaw ñi nga xam ne ñoom ngeen di àndal waxtaan yi nga xam ne moo ciy dox waxumal dara waaye téléphone dong war nañ koo jagleel waxtaanu boppam da nga soxna soo xamante ne nii day aji doom ya wut jox ko téléphone wala sax léegi mm, daanaka mag ñëpp am nañ seen téléphone yi ñuy sabe ndax sama yaay sax nee na ma bëggatuma téléphone bii di damm ay we waaye bi ñu faxas ne ñëpp laa bëgg faxas kay nga xam ne day daal di bëgg a toog ne ca aj ga waaye moom jëmmam jee dem màkka waaye yëpp ma ngi senegal ba léegi mi ngi ci groupe bu famille bi di audio léeg ma nga ca yenn werante yi léeg-léeg ma ngay audio di jëw baa ñuy audio di jëw di ko jox muy audio di delloo wala wala wala yu bari yoo xamante ne nii bu njëkk la gënoon a yomb bu njëkk la gënoon a yomb dañ ci nañ ci bàyyiwaat xel bu baax sàllaaw léeg sax foto yi xaw maa jaaxal ndax da nga gis koo xamante ne day door a ma diina di soxna su aj si ñëw doon mag di door a ñëw ci barabu yonent bi alayhi salaatu wa nga xam ne moom li mu war a yittewoo dëgg mooy siyaare li mu war a yittewoo dëgg-dëgg mooy ñaan ak ñaanal ñu ko fi indi waaye téléphone ba mu yor lay lay yor yow mi bëgg a ñaan sax boo muy tuut génneel appareil beeg photo ma ci la la nar a mere ba aj gi di jeex ndax mënu ca dara te jàpp na ne daa war a photo foto bi da koo war a yónnee Sénégal da nga koo war a vidéo dañ koo war a nangam nga xamante ne jaamu yàlla gu sell moom amatul jaamu yàlla gu sell moom baa lu néew a néew lay doon te jafee am te jafee am rawatina ci barab yooyu nga xam ne dañ caa waroon a profité ngir am ko fa waaye ma nga génnee naan la photo ma ñii naan la vidéo ma fii ba noppee ñu ne envoyé ma ko sama doom ji nga envoyé ba noppi mu ne lu mu wax euh, euh, lu luñ wax c'est-à-dire day mujj yàgg jëf ji li lalu ci biir ci ngistal ak lu yàq jëf day bari lool ba mën a yàq jëf yëpp te loolu taxul woon nag a ah, wax dëgg yàlla ñuy jëf moo tax lépp loo xam ne daa wuuteeg njàngaleem lislaam lépp loo xam ne daa wuuteeg eh, eh, maanaam eh, ak ak sellal lépp loo xam ne daa wuuteeg aj ci boppam ak na ca xol ya daan ajoo loolu moytandi ko ci aj ji mooy tax nit ki am aj goo xam ne buy dellu si day mel ne bis ba mu juddoo ci woy juram waaw ndax gannaaw aj gu baax mooy koo xam ne bu dellusee dëddu àdduna waaye gën a xem xemmem alaxira su fekkee boo dellusee gën a bëgg àdduna ba ku la wooyewut alaaji wala ajaa nga mer bëgg daraja ba ku la siyaari wut nga mer bëgg daraja ba la newul ñaanal ma ku la newul maa ngi lay ndokkale ci aj gi nga mer ndax bëgg daraja bu boobaa nag dëgg-dëgg du màndargay aj gu nangu du màndargay aj gu nangu yàlla nañu yàlla boole jéggal aj màkka lu am solo la amr ibnu aas radiallahu anhu nee na bi suñu borom subhanahu wa defee lislaam mu tàbbi ci sama xol nga xam ne dama tàmbulee am cofeel ci woote bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax loolu njëkkewu ko woon bokkoon na ci ñi nga xam ne pexe mu ne daan nañ ko def ngir gàllankoor yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ak wooteem bi nee na nag damaa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dugg ci lislaam nee na bi mu agsee ne ko tàllalal sa loxo ma jaayante ak yow tàllalal sa loxo ma jaayante ak yow nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàllal loxoom nee na ma jàpp ci loxoom daal di jaayante waaw daal di jaayante nee na mu mel ne damaa wax yonent bi alayhi salaam wasalaam ne ko damay sartonte ak yow nag ci ne la nga jégal ma damaa bëgg nga jégal ma ma jaayante ak yow waaye damaa bëgg nga jégal ma yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko xanaa xamoo ne dugg ci lislaam al islaam day màbb la ko jiitu woon maanaam tey ki nekku doon ab jullit bis bi mu ñëwee ne damaa bëgg a dugg ci diine ji ñu ne ko waxal ashhadu an laa ilaha illallah mu wax ñu ne ko waxal ashhadu anna muhammadan rasulullah mu wax ta nekk dëgg ci ab xolam lum mas a def day mel ne bisub keroog la dundam gi door a tàmbali maanaam montram bi day mel ne dañ koo dañ koo réglé waaw dañuy day mel ne day mel ne document bi mu amoon dañoo supprimer lépp ubbil ko ubbil ko document bu bees waaw wala boog ubbil ko dossier bu bees mu ne ko lislaam noon la noonu la mel noonu looloo tax nga gis asaxaabatul kiram ñenn ci ñoom lu jiitu ñuy dugg ci lislaam lu ne def nañ ko lu ne gis nga koo xamante ne lim rey ci jullit ñi kenn xamul nu mu toll mën ngaa jël ku mel ne Xaalid ibnu Walid mën ngaa jël ku mel ne Waxshi mën ngaa jël man ngaa jël waaye lislaam al islaamu day far la jiitu woon day màbb la ko jiitu woon yonent bi ne ko lislaam day day far la ko jiitu woon gàddaay day far la ko jiitu woon aj màkka day màbb la ko jiitu woon maanaam ki nga xam ne daa nekkoon looloo ma taxoon a jóg ci xadis bi nga xam ne imaam muslim a ko nettali daa nekkoon ci safaan ay njuumte yoo xam ne daan na ko def bu demee aj màkka te góorgóorlu ba aj niñ war a aje aj gi day mabbu mboolem lam tabaxoon ci gannaawam te tabaxoon ko ci ak neen waaw caaxaan ya bakkaaru jëw ya bakkaaru waxlu du dëgg ya bakkaaru fimiste ya yooyu yëpp lislaam da koy aj màkk da koy mabbu lislaam noonu la koy defee waaye gàddaay it noonu la koy defe mbokk yi loolu ci ngëneeli aj la bokk kon kii aji dëgg la li muy defi lu rëy la boo xamee li ko ciy xaar ci aw yiw bu xamee fay gi nga xam ne moom la ko ci borom bi subxanahu wa taala dikk yal na yàlla defal ko mboolem ñi nga xam ne ñu ngi arfaan di waajal li nga xamante ne mooy aj Makka te jàppandilal leen te jàppandilal leen waaw démb bi ma noppee ci jotaay bi bari na lool ñoo xam ne ak la ko jiitu dañ naan damaa bëgg sama waajur aji daal di laaj fan ngay dem damaa bëggoon ñu ànd ak yow xam naa orienté leen rek ci essence lay man waaye. ñun yoruñu assance te itam du at mu nekk la ñuy dem du mu nekk la ñuy dem maanaam euh, yàlla dogaloon na ko ci at yee ñu génn ñu am ñuñ doon àndal bokkoon ci ñi nga xam ne daan nañ jàppalante ak pèlerin yi yal na yàlla nangul leen nangul ñiñ fa dajeeloon te nangul imaam Moustapha Niang bu Sirmang voyage mi nga xam ne moom lañ daan àndal ci liggéey bu am solo boobu ala kulli xaal aj màkk ak jaamu yàlla la du jaamu yàlla gu met gu yomb jaamu yàlla gu ànd ak i coono la waaye yiwu rëy wi may wax jàpp naa ne ku koy kum tax a jóg coono boo tegooti man koo muñ waaye dootoo nangooti ku la ko yàqal dootoo nangooti ku la ko yàqal moo tax aj ak umra ñoom ñaar dañuy puusal nit ki ayu ñàkk waaye dañ koy puusalit muy doxale kenn ci digganteem ak boroomam subxanahu wa ndax loolu daa bokk ci li nga xam ni moom lay jàngi waaye daa bokk ci li nga xam ne moom lañuy ñuy dunde ji moom la ñuy wuti ca aj ga euh, nga xamante ne ñi ñëw aj si ay gane yàlla lañ gane yàlla xam nga loolu beneen affaire la alxujaaju wafdullahi ila baytihi alxaram ay gane yàlla lañ ay kuréel lañ mbooloo lañ moo xamante ne buñ ñëwee ba ak fi makka ca aj ga borom bi subhanahu wa taala jàppe leen ay ganam ku am gan nag da ngay warloo teral ko waaw da warloo teral ko suñ borom subhanahu wa taala amut lu war ci moom loo xam ne eh, maanaam li ñuy wax alxaqu alwaajib lay doon ci moom id laa yajibu ala llahi shay amut lu war ci moom lu ñu naan farata la ci moom bu defut nangam nangam déedéet waaye moom ci boppam moo warloo teral nag ay ganam moo tax moo warloo it teral ku ko teralal ay ganam moo warloo teral ku ko teralal ay ganam moo tax boo ñëwee foofu gis ñu mën a teral ñuy jéem a teralal borom bi subxanahu wa taala ganam ñooñu da nga gis ñoo xam ne dañuy togg di joxe léeg gis oto boo xam ne day jékki-jékki taxaw ab wala leneen ubbi ca gannaaw daal di tàmbali lu ne nekk ci biir muy joxe ba mu jeex rek mu di taal dem yoonam ndax lan ñii nga xam ne. jubóog seen borom subxanahu wa a ak bëgg am yërmandeem moo leen tax a jógee dëkk ak dëkk yàlla xam na ko. nga gis ku nekk euh, gis koo xamante ne li muy ñëwee soxla na ko waaye dajale na ko lu yàgg ba ñot ñoti ba am ñëw maa ngi am menn mbokk moo xam ne su ma tollee ci xalaat yu mel ni sama xel nekk ci moom defe naa daaw daawaati jéeg la ma woo wax ne dafa bëgg a aji dama bëgg ñu ànd ban assance ngay dem ñu waxtaan far at mooma aj gi amut ndax Covid bi at ma te mooy daaw bi aj amee aj gi seer eh, lool balam dajale woon matut nga xamante ne bitig la yor waaye nee na am naa lu ba kopp-koppal waaye manqué na waaye xel mu daal même ci àndal moo ci yéeme nga xam ne am na koo xam ne day day telli telliwaat wala muy wàññilu waaye déedéet gannaaw ak jaamu yàlla la woon te yàlla dogal na matut maa ngi ñaan yàlla may ñu ñu dund ba déwén ren jii bi may jokkoo ak moom nga xamante ne ñu ngi ciy waxtaan mu lay wax eh, danaan la nañ bàyyi ba déwén ndax bi may e, waaj damaa yaakaaroon ne ku am xëy ne ñeenti million wala ñett ak dara danga nga mën a dem waaye bi ma xoolaatee gis naa ne e, li ma yor ci loolu la toll te loolu laa waajaloon te gannaaw ak jaamu yàlla la baal ma wiyaat di dajale ak di xaar ak déwén ak jàmm ndax yoru kër ak yoru farataak yépp nga bëgg koo def ma ne ko loolu yi nag def ko sax mooy farata nag def ko mooy farata ba man ko ndax xadis ba ma waxoon démb ca waxtaan wa mbokk mi maa ngi lay jégalu waaye yoonu njàngale mi rek a tax ma ñëw ci sa mbir ak man eh, ku ko man la wax ba noppi ne benn yoon ku ko la wax ba noppi ne benn yoon léeg ma gis ñoo xamante ne <clears throat> nañ ma baal ay politiciens yi ñooy maye billet màkk danga koy gis nag waaye bu doon ci réewum moo xamante ne dañuy delluwaat ci lislaam loolu daa jara xoolaat ndax koo xamante ne daaw biñ ko falagut daaw biñ ko falagut nekkagut ministre Euh, daaw biñ ko falagut nekkagut ab directeur général moom ci boppam mënta yóbbu sax boppam màkka baa bu ko yóbboo day yëg ne yóbbu na boppam ren nag mu bëgg a maye juróomi billet màkka wala ñu naan moom may diw ak diw màkka wala nangami billet màkka loolu du ak jaamu yàlla loolu du ak jaamu yàlla xaw ma yow mi ko may moom da nga ajam déet waaye moom bu fekkee li ñëpp bokk moom la ñuy jël di ko defee ay billet màkka di may nit ñi loolu moom du ak jaamu yàlla lislaam santaanewut loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngalewul loolu nit ku jubit doo doo bëgg a def loolu ndax bu fekkee am mairie boo xamante ne ba léegi ñi ngi am jafe-jafe lu toll ni mbalit ma am na làmp yoo xam ne takkut am na école yoo xamante ne defaruñ ko ba nit ña mën caa jàng nit ñaa nga soxla faju hôpital ba ci boppam manqué ay matériel buñ tibbee ca budget mairie ba wala ñu tibb ca budget réew ma wala ci budget ministère ba def ko ay billet màkk jox nit aj googa da du aju farata ca kooka maanaam ki nga xamante ne noonu lañ ko joxe mu aji aj daa nekkul farata ci moom moom ndax da koo da warut ndax da koo amut da koo amut su fekkee clientèle politique la nit ki nag def ko ci alali boppam moom maye jox nit mu aji dimbali na nit ngir mu matale ji ak jaamu yàlla waaye ñii nag moom bu fekkente ne xaalis boobu foofa la bàyyi ko la fa dajale woon loolu da koo taxut a jóg loolu da koo a jóg yàlla xam na ko lu lu lu lu naqaree wax la waaye nii la amee waaw nii la amee loolu da koo taxut a jóg de maanaam euh, budget ministère bi moo xam social lañ ko tuddee na social bi dem ci socialu nit ñi nga xamante ne ñi ngi ci réew mi te doon social bi ñëpp bokk loolu mooy priorité bi waaw priorité bi donte sax ay ordonnance lañ ko def ca pharmacie ya jàpp li ñu mënta faju wala euh, barabi liggéeyukaay yoo xam ne nit ñi danañ ca mën a liggéey wala yoo xamante ne jàmp na ci suñ kanam loolaa gën a farata fuuf dajale aw nit